Euh, fajar bu jot ngir xool tolluwaayu virus bi fii ci biir Sénégal ak ci euh, bitim réew ñu daal di xool yi li nga xam ni moo di journaux yi lan la ñu xëyee tey ci wàllum euh, quotidien yi revue des titres bi donc dañ koy dooree ak li quotidien mi ñëw ci euh, Déthié Fall mi nga xamante ne moom la ñu euh, démettroon ci postam fële ca réew mi donc jamono ji daal mel na ni moom moo nekk attraction euh, politique sénégalaise bi moom moo ci gën a fës bu ñu sukkandikoo ci lii quotidien mi ñëw wax ci lu am solo ci ay détails moom mi nga xamante ni moo di Déthié Fall féete fële ca parti réew mi te leader bi di Idrissa Seck ñu jóge ci lii quotidien daal di ñëw ci beneen yéenekaay ci beneen yéenekaay di le quotidien ñu ñëw ci wàllum Covid 19 ak traitement à domicile malade yi nga xamante ni seen kër lañ leen di fajee jamono ji ñi ngi toll ci 2980 euh, bu ñu xoolee 3288 yi nga xamante ni euh, ñoom ñoo nekk sous traitement 2980 yëpp ñoom ñu ngi leen di suivre seen biir kër professeur Souleymane Mboup Mboup ji wax ni rek euh, Sénégal séquence bi nga xamante ni moom moo di nouveau variant yi sori nañ ko loolu loolee la le quotidien xamle ci wàllum euh, Covid 19 rawatina traitement à domicile yi fii ci biir Sénégal réew mi quotidien daal di euh, fësal euh, kàddu kii di Moïse Sarr di secrétaire d'État auprès des Sénégalais de l'extérieur di wax rekk ci jàpp bu ñuy jàpp kii di Boubacar sey nekk président bu Horizon sans frontière di wax ne Boubacar sey dafa def diffamation maanaam dafa rekk accusé lii di état bu Sénégal à tort wax loo xamante ne defu ko loolu moo waral ñu daal di koy teg loxo ba mu wàccee ci aéroport bu Blaise Diagne ba jamono ji eh, mi ngi ci loxoy eh, yoon. ñu daal di ñëw ci le soleil ñëw ci euh, yokkute yi nga xam ni gis nañ ko ci cas yi euh, Covid 19 rawatina nag diggante Kaolack tuuba ak Saint-Louis mu mel ni daal foofee la mbir yi gën a euh, méttee bu ñu xoolee 632 nouvelles contaminations ak 9 décès ci week bi képp la ñuy réaliser lu mel noonu ñu gis ni itam cas yi décès yi ak li nga xam ni moom moo di situation hôpitaux yi foofu dafa doy waar lool le soleil moom moo ci indi ab jàngat bu yaatu. mu di tolluwaayu Covid bi ci yooyu lee eh, ñett bërëb di eh, Saint-Louis Kaolack ak Touba source A daal di ñëw ci eh, wàllum couvre-feu bi et état d'urgence en général diggante Dakar ak Thiès jamono ji ñëpp ñu ngi bàyyi xel njiitum réew mi di xaarandi lan lay def ginnaaw ba fukki fan ak ñaar yi nga xam ni moom moo nekkoon délai bi épuisé na ni ci minuit ñi ngi xaarandi ana lan moo ci fas yéene topp ba xam dañuy gën a yooyu les mesures wala rekk dañ koy gën a woyofal ñu koy euh, xaarandi moom it di njiitum réew mi di président Macky Sall Vox Populi daal di ñëw ci bilan wu euh, semaine bi ñu génn ci wàllum Covid 19 juróom fukki doomu aadama ñoom ñoo si daal di ñàkk seen bakken ci diirub rek juróom-ñaari fan ñi nga xam ni nag euh, moo di nombre de cas ñi am Covid bi ci lu bees ñoom ñu ngi toll ci junni ak juróom-ñaar téeméer ak juróom-ñett fukk ak ñett di 1783 nouveaux cas yoo xamante ne ci diirub une semaine képp lañ ko daal di enregistré euh, fii ci biir euh, Sénégal bu ñu jógee ci Vox Populi daal di ñëw euh, ci l'Observateur mi ñëw ba tey ci wàllum état d'urgence ak it lii di couvre-feu bi mu jëm mu mel ni jamono ji daal ñi ngi xool nu ñu gën a durcir yooyu les mesures xool itam heure bi nu ñu koy jëlee vingt et une ba dix-huit jàpp 5 heures du matin ci week yi euh, diggante euh, samedi ak dimanche xool rek naka lañ koy wàccee diggante 18 heures mu tàmbali 18 heures ba 5 heures du matin critique quotidien daal di ñëw ci réerub kii di Diary Sow nekk meilleur élève bu Sénégal jamono ji ñu koy wër ba tey mu mel ni daal ñu ngi continuer enquête yi ak it recherche yi euh, sur internet am na ci ay révélation yu bees yoo xamante ni euh, def nañ ko ci euh, loolee lépp ay itam moroom étudiant am daal di àddu à l'anonymat loolu lépp mën mën ko xool gis ko ci yéenekaay bi Les Échos daal di ñëw ci 176 sénégalais yi nga xam ne ñu ngi fële ca Tenerife euh, depuis trois mois amuñu fenn foo xamante ni dañ fa euh, dem donc ñoom dañu bloqué foofee ca Tenerife dañu daal di rek amal ab euh, grève boo xamante ni grève de la faim la ñu ngi xiifal ngir rek interpeller état bi Sénégal. ci seen euh, situation euh, direct news daal di ñëw ci secteur tourisme bi nga xam ni euh, jamono ji mi ngi waaje rek suux bu ñu xoolee li mu am ci ay perte ndax Covid 19 bi mu di tourisme di restauration jamono ji doxul biir Sénégal te ministère bi nga xamante ni moom moo yor wàllum tourisme ñu interpellé ko ci bu baax a baax di ASPT ak Air Sénégal itam ñoom yi ñu ngi sentir bu baax a baax ku baawu lii di Covid 19 bi. ñu jóge foofu daal di xool Dakar Times ak euh, li ñuy wax rek di mètre en garde ci li nga xam ni euh, li xewoon fële ca Ngadiaga bu ñu moytuwul dina xew euh, ci ICS Indorama gannaaw bu ñu gisee ni ay fuite de gaz ak ndox yoo xamante ni dafa polluer mille hectares yoo xamante ni dañ leen daal di yàkkate ak ñaar fukki village ak ñaar yu ñu touché loolee lépp bu ñu ko xoolee daal. mën nañ jàpp ne moom euh, la xewoon fële ca Ngajaga mën na euh, xewaat euh, ca bërëb boobu loolu moo nekkoon li gënoon fës ci wàllum yéenikaay te jii ci lundi bi 18 janvier 2021 yéen a ngi ci seen émission matin bonheur ci votre première chaîne de télé privée du Sénégal la 2STV 88.4 origine FM ñu nuyu bépp auditeurs bu ñuy teewlu ak internautes yi nekk si YouTube bi ak Facebook 2STV l'officiel li ñuy daal di xool clip du jours daal di ñëw nag euh, ànd ak ki nga xamante ni moo di docteur Malick Diop ngir waxtaanee tey lépp lu jëm ci wàllum Covid vaccin ak bien sûr actualité euh, politique nationale.